mais ngi noonu le procès euh, Prodac renvoyé jusqu'au 16 mars 2023 yéen a koy seet noonu président Ousmane Sonko rejoindre na son véhicule peut-être di s'affronter ak échanger quelques mots ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy son entourage notamment certains avocats mais aussi le top management de Pastef les Patriotes Bala Moussa Daffé seen nañ ko fii seen nañ fi aussi yeneen alliés yoo xamante ni ñëw nañ peut-être le président prend un peu le temps on va prendre un peu le temps d'échanger discuter un peu waaw d'échanger un peu comme vous le voyez euh, certainement Et non, je rappelle que le procès euh, Prodac a été renvoyé jusqu'au euh, euh, actuellement, on est euh, le parking, de, le parking du tribunal Dans un instant, le convoi du président Ousmane Sonko va se mettre en branle pour rejoindre la tanière du lion, euh, cité Keur Gorgui. Actuellement, ñi ngi ci euh, euh dernier réglage yi pour mettre en place le convoi euh, mi ngi noonu président yéen a ngi koy sonn noonu ci oto bi euh, muy am quelques kàddu yi muy échanger ak ñoo xamante ni ñoom ñoo ñëwoon soutenir ko Waly Bodian chef de la sécurité D'accord, c'est bon. man kay poros may digg bi man kay may digg poros mi ngi noonu le président. s'il mi ngi noonu président Ousmane Sonko. excusez un peu je suis en train de faire de refaire un peu le dispositif qui nous permet de faire le live. mi noonu président Ousmane Sonko se met en branle ici au niveau du tribunal de Dakar président ngi mi ngi génn mi ngi génn président ngi noonu mi ngi génn le convoi se met en place le convoi se met en place. waay ñu ngi ñu ngi nii di départ de. mi ngi noonu. ñu ngi nii di noonu président Ousmane Sonko en direct te kër góor gi waaye gis ngeen ni dafa génn rek. Euh, prési prési commencé c'est des sympathisants qui étaient venus le soutenir yàlla def na ils avaient eu la possibilité d'accéder ci zone bi nii nga xamante ni moom moo di euh, tribunal bi malgré li nga xamante ni moom moo di la forte présence malgré malgré la forte présence policière mi ngi noonu yéen a ngi leen di dégg prési prési nous sommes dans li nga xamante ni mooy secteur ñoo ngi ci secteur bi nga xamante ni moo di tribunal bu Dakar di leen fàttali que le procès a été renvoyé jusqu'au 16 mars incha allah 2023 buñ ko fekkee tal ko ñu dellu si waat ñu remettre encore la même chose ñoo ngi noonu ñoo ngi noonu ñoo ñoo ngi noonu ñoo gi génn ñoo ngi génn si périmètre tribunal bi askan baa ngi génn nit ñaa ngi daw di fekk si li nga xamante ni moom moo di président Ousmane Sonko on sort du périmètre dragon yaa ngi noonu xale yi min nañ ko xale yi xam nañ ko waa axlu résistance ñoo ngi noonu président mi ngi génn ci périmètre bi nga xamante ni moom moo di périmètre tribunal bu Dakar le cortège le convoi se met en branle mi ngi noonu seen dispositif sécuritaire yaa ngi noonu rëbës a ngi noonu suñu xel suñu xalaat nekk ci suñu gaay yi Ndonga Diop Diop Taïf Fadilou Keita et tous les autres patriotes qui sont là nous pensons très fort à vous na seen famille xam ni président Ousmane Sonko fàttewu leen Rebeuss a ngi noonu askan bi daw nañ nit ñaa ngi daw di dajeeg ñoom dama bëggoon tey bu ñu mënoon a yuuxu ba suñu mbokk yi gi dégguñu Fadilou Keita Ndongo Diop Diop Taïf Nit Doff Hannibal Djim tous ces en injustement emprisonnés ici à Rebeuss parce que seulement bëgg nañ président Ousmane Sonko parce que seulement bëgg nañ changer li nga xamante ni moom mooy esclavage moderne bi ñuy dund ci suñu réew mi actuellement le pays est assujetti aux puissances étrangères surtout celle de la France président Ousmane Sonko bëgg a dog buumu jaam yi askan baa ngi génn soo ko laalee l'hymne national de la jeunesse l'hymne national l'hymne national l'hymne national président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko dinaa la dóor national l'hymne national mi borom moto yi ñëw borom moto yi ñëw nañ boo ko laalee boo ko laalee national de la jeunesse du Sénégal l'hymne national de la jeunesse du Sénégal boo ko laalee dinañ ku ñuy laal noonu moo di le président Ousmane Sonko mi ngi noonu suñu mbokk yi nekk rëbës ñu ngi noonu ñoo ngi rom seen mur les 49 depuis tous les patriotes yi nekk bi rëbës xel ak xol mi ngi ci yéen ñoom ñëpp xel ak xel mu ngi ci yéen nit doof Hannibal Jim Diop Taïf Ndongo Diop et tous les autres Ami Dia mi ngi nekkee côté camp pénal Pape Omar gaa yëpp suñu xel ak xol mi ngi ci yéen tenez bon ce n'est plus loin yàggatul nous y arriverons le président Ousmane Sonko pense fort à vous il comprend le sacrifice et il le comprend à sa juste valeur Inch'Allah c'est pour bientôt ce pays-là sera libéré président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mi ngi noonu président Ousmane Sonko askan bi génn na nit ñaa ngi ci balcon yi fës fës non mayel fës toog mi ngi noonu ah, baax eh, Karim Karim sóoraale ma ngi noonu employé yi gaa yi président Ousmane Sonko on est à Rebeuss comme je disais ku mën na def ku mën na def président Ousmane Sonko président la force restera à la jeunesse la force restera au peuple mi ngi noonu on l'applaudit on l'applaudit on l'applaudit soo ko laalee soo ko laalee l'hymne national de la jeunesse soo ko laalee soo ko laalee exceptionnel mi ngi noonu xoolal yaay booy yor bi mi ngi noonu démb moom la ñu àndaloon Azoura Fall xel mi noonu le drapeau ne doit pas tomber noonu nit ñaa ngi ci car président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko on est à kenn du ko mi ngi noonu mi ngi noonu président Ousmane Sonko ño ngi avancé ñoo ngi avancé kenn du ko laal Sonko mi ngi noonu askan bi génn na askan bi génn na yaay booy yaa ngi tàccu président Ousmane Sonko mi ngi noonu. waa Rëbës a ngi noonu ñu ngi koy tàccu président Ousmane Sonko mi ngi noonu waa terrasse waa balcon gaa yaa ngi noonu gaa yaa ngi noonu président Ousmane Sonko ngi noonu. mi ngi noonu. ñoo ngi rëbës ñoo ngi Medina même nit ñaa ngi noonu xoolal yaay booy xoolal yaay booy gunge ko mu ñibbisi gunge ko mu dem président Ousmane Sonko ñoo ngi tollu fi nga xamante ni moo di hauteur mosquée omarienne gunge ko mu dem nit ñaa ngi noonu seen kaw balcon yi président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel moo ñu noonu mooy yaakaaru askan bi xale yi nee nañ boo ko laalee moom mooy yaakaaru réew mi réew mi am yaakaar ci moom convoi wu président Ousmane Sonko moo ngi noonu war a progresser ñoo ngi noonu dellu à la tanière si de góor gi mi ngi noonu xale yaa ngi ci kanam xale yaa ngi ci kanam regardez ce monde fou regardez ce ñoo ngi fi nga xamante ne moo di hauteur u la grande mosquée omarienne ñoo ngi noonu oto yaa ngi avancé xale yaa ngi ci kanam ñu ngi noonu bëgg rejoindre le convoi du président Ousmane Sonko on avance sécurité bi on avance nit ñaa ngi ñëw attention nit ñaa ngi ñëw nit ñaa ngi ñëw nit ñaa ngi ñëw président Ousmane Sonko xool mali ma lii xool leen ñoo ngi fi tolloog ak fi nga xamante ne moom mooy la direction général de la police annexe mais xoolal ni askan bi di génnee biir Médina xoolal ni ñuy dawee génn biir Médina topp convoi bi le convoi du président Ousmane Sonko la porte du millionnaire qui se dresse de, devant le, le convoi du président Ousmane Sonko la porte du millionnaire qui se dresse devant le convoi du président Ousmane Sonko tel un appel l'appel de l'Afrique président Ousmane Sonko taxaw di seetaan ku munul tàccu itam sa xol féex na président Ousmane Sonko xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu exceptionnel te lii du dara bàyyi leen ba ñu dogg corniche bi président ngi noonu ga yaa ngi noonu ci kaw terrasse gaa yaa ngi noonu gaa yaa ngi noonu ci kaw terrasse gaa yaa ngi noonu mi ngi noonu l'homme du peuple le président Ousmane Sonko seen président Ousmane Sonko on est là on le président Ousmane Sonko. mi ngi noonu moom la ñu bëgg moom la ñu bëgg mi ngi la porte du millionnaire qui s'ouvre au président Ousmane Sonko. mi ngi noonu balcon yaa ngi noonu balcon yaa ngi noonu balcon yaa ngi noonu balcon yaa ngi noonu ku munul tàccu di nga génn seetaan sa xol dina féex dispositif sécuritaire baa ngi noonu président Ousmane Sonko balcon yaa ngi noonu balcon yaa ngi noonu exceptionnel regardez cette marée humaine devant moi regardez cette marée humaine le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko mi ngi noonu génn président génn na mi ngi noonu xale yi nañ xale yi nañ président mi ngi noonu mi ngi noonu xool ko fi mu taxaw xool ko fi mu nuyu kan wi mi ngi noonu bañ bañ nangu bañ bañ nangu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko askan baa ngi noonu génn na saafonteeg xale yi ah fi nga xamante ne moo di buntu mosquée omarienne ak fi nga xamante ne moo di daaf président fa la taxaw nuyu xale yi saafonteeg ñoom mi ngi noonu la casquette bien visée sur la tête président Ousmane Sonko ngi noonu mi ngi tàccu xale yi mi ngi leen tàccu il lève les bras en signe de victoire le président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko waaw waaw ñoo ngi noonu le monde nous regarde l'Afrique nous regarde président ngi noonu xale yi daw nañ ñëw xale yi daw na ñëw xale yi daw nañ ñëw président Ousmane Sonko mi ngi noonu président mi ngi noonu xool leen lii regardez la marée humaine noonu regardez cette foule regardez cette foule xale yi nee nañ ñun ay néew yuy dox lañ pour vous dire nan la ñu paree regardez cette foule regardez cette foule devant nous le président Ousmane Sonko est derrière mi ngi noonu oto baa ngi ne oto baa ngi ne buur yàlla ñoo ngi lay ñaan Sonko jël ndam li je vous ai écouté mettez-moi les cœurs s'il yàlla ñoo ngi lay ñaan mi ngi noonu exceptionnel le drapeau du Sénégal qui flotte mi ngi noonu balcon yaa ngi noonu balcon yaa ngi noonu président Ousmane Sonko balcon yaa ngi yaa ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane le drapeau du Sénégal qui flotte le président Ousmane Sonko le drapeau du Sénégal qui flotte pour accompagner cette joie cette liesse populaire cette détermination pour le président Ousmane Sonko le Sénégal de la jeunesse le Sénégal il est là cette jeunesse debout pour se battre prêt à tout pour protéger le projet exceptionnel regardez ce qui se passe devant regardez ce qui se passe devant lii tey leer na ma ni taxul ñu àgg fi nga xamante ni moo di la tanière du lion cité kër góor gi président Sonko président Ousmane Sonko xale noonu jiitu nañ ko jiitu nañ ko jiitu nañ ko owe owe président Ousmane Sonko xool leen gars nekk ci seen terrasse tellement loin mais ils sont déterminés à regarder à être des témoins de l'histoire le président Ousmane Sonko foo tollu nga bëgg ko seen foo tollu nga bëgg ko gis président du peuple le président Ousmane Sonko mi ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel exceptionnel mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu ku mën na def ku mën na def ku mën na nga programmer ku mën na nga programmer sa procès un jour ouvrable nga génn nga xool ndax askan bi dinañ génn président Ousmane Sonko l'exceptionnel président Ousmane Sonko the eagle one président Ousmane Sonko le lion ñoo ngi noonu ñoo ngi progresser terrasse yi fees de del nous sommes sur la corniche le président Ousmane Sonko revient de son procès qui vient d'être renvoyé au 16 mars 2023 ce procès qui l'oppose à Mame Mbaye Niang un ministre euh, qui a le toupet de se présenter devant cette justice pour dire qu'il porte plainte au président Ousmane Sonko aidé en cela par l'appareil du dictateur Macky Sall le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko xool leen ci kanam xool leen ci kanam xool leen ci kanam à perte de vue à perte de vue mi ngi le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko celui qui déferle les foules sénégalaises le patriotisme les cœurs des Sénégalais sur cette corniche de Dakar ñoo ngi nii président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko xoolal borom terrasse yi fële xool leen borom terrasse yi fële xool leen borom terrasse yi président ngi noonu président ngi noonu génnaat na génnaat na génnaat na président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko il est là l'homme du peuple est là la détermination de cette jeunesse est là l'espoir de ce peuple est là nee na leen na ñu nee na xale yi na nañu avancé exceptionnel exceptionnel yaay booy yaa ngi daw di tàccu le président du peuple sénégalais Ousmane Sonko Ousmane Sonko nit ñaa ngi ci kaw terrasse yi à plus de 500 mètres pour regarder le président Ousmane Sonko pour saluer le président du peuple sénégalais le peuple a choisi son président le peuple a choisi son président 2024 dès le premier tour match du am dañuy ren di jéggi dem suñu yoon c'est le président Ousmane Sonko c'est le président Ousmane Sonko exceptionnel exceptionnel exceptionnel cette foule le jeudi 16 février ici à Dakar sur la corniche ouest de mémoire d'homme lii mësta am de mémoire d'homme lii mësta am seul le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko l'exceptionnel l'hymne national mi ngi noonu soo ko laalee soo ko laalee xale yi woyati nañ ko drapeau yaa ngi flotté le drapeau du Sénégal le vert le jaune et le rouge frappé de l'étoile à cinq branches de couleur verte mi ngi noonu jamais loin du président Ousmane Sonko parce que c'est le président du drapeau c'est le président du Sénégal c'est le président du peuple sénégalais moom la sénégalais yi tànn moom la sénégalais yi taamu moom la sénégalais yi àndal moom la jeunesse bi dénk avenir am président Ousmane Sonko exceptionnel on est là xaw nañ sorante ak auto président waaye admirer cette foule admirer cette détermination admirer ces gens qui sont sortis pour regarder pour saluer pour rendre hommage au président Ousmane Sonko suñu yaay yaa ngi noonu di defaraat kol yi ndax mu sell may ñëw moom moo fiy jaar président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko exceptionnel exceptionnel il est salué à coups de klaxon par les Sénégalais président ngi noonu xoolal xale yi ni ñuy dawee ci mbedd yi di ñëw xoolal xale ni ñuy dawee ci mbedd yi di ñëw président Ousmane Sonko mi ngi noonu dugaat na ci oto bi le président du peuple sénégalais the eagle one le lion le lion Ousmane Sonko mi ngi noonu ku mën na def ku mën na def ku mën na def on est un jeudi le jeudi 16 février jour ouvrable sur la corniche ouest de Dakar mi ngi noonu l'exceptionnel le président du peuple moom mooy ñibbi demoon procès ak mbay Prodac ñu renvoyé ko ba le président waxoon na leen bu lépp jaaree yoon ma jaaral ko yoon bu dara jaarul yoon duma ko jaaral yoon mi ngi noonu convocation bu ñëw à temps avocat yi jàmbar ko ñu ni ko amul problème na ñu dem dem nañ ñu gunge ñibbi si nañ ñi ñuy gunge waat na def ku mën na def ku mën na def Président Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko, accompagné par une marée humaine. Elle est là. La marée humaine est là. La marée humaine est là. La marée humaine est là. La marée humaine est là. xoolal xale yi ci kanam. ngi noonu yaay booy yaa ngi yëkkati bidon yi boo ko laalee soo ko laalee yaa ngi noonu le vert le jaune et le rouge frappé de l'étoile à cinq branches de couleur verte le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko exceptionnel exceptionnel la procession victorieuse la procession triomphale sur la corniche ouest lii mësta lii mënut a am kii mooy président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko mi ngi noonu mi ngi noonu mi président Ousmane Sonko. mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu yéen a ngi koy dégg yéen président Ousmane Sonko di avancé ànd ak xale ngi noonu. noonu on progresse on progresse nañu progresser président Ousmane Sonko xale yi ànd ak moom ànd ak détermination ñoo ngi jëm xamante ne na président génn na mi ngi noonu juste à hauteur de la radio RFM et de l'Observateur le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko mi ngi génn na nee na xale yi nañu dem nee na xale yi nañu dem yëkkati na loxo yi ca kaw c'est le choix du peuple c'est le choix du peuple moom moo ànd ak le peuple président Ousmane Sonko mi ngi noonu policiers yi tiré nañ benn lacrymogène fële ci ginnaaw tiré nañ lacrymogène fële ca ginnaaw vraiment on ne comprend pas on ne comprend pas de manière

La foule a été gazée à hauteur de la rajo RFM mi noonu kenn comprendre lu waral li et pourtant président dafa génn gazé waat nañ fii ci kanam mi noonu yéen a ngi seen la foule demal ñoo ngi ñoo ngi noonu gis nga donc le convoi du président Ousmane Sonko est attaqué en direct vous le voyez ma jël bi li du mas. masque laa soxla masque. li du masoo jox ma nii jox ma nii. mais sama war a génn. ay eh, kii ñoo jëlee. Eh. teewlu teewlu teewlu teewlu ma génn teewlu. génn da nga war a génn. teewlu ma teewlu teewlu teewlu teewlu. na nekk en kii na nekk en. na nekk en en rek. bay bay bay. gaaw Ousseynou gaaw Ousseynou gaawal tëj gaawal tëj gaawal tëj. <laughs> dóor ba léegi dama xam te yow bu tëyee gaaw tey waaw waaw waaw jafe sax. gën a ko def gën a ko def. dara moom gën a ko def gën a ko def. may ma génn may ma génn may ma génn. waaw. may ma génn may ma génn. may ma génn. Oh, ma ngi noonu. ma ngi noonu. ñu ngi noonu ils ont gazé ils ont gazé le véhicule du président Ousmane Sonko. ils ont gazé le véhicule du Sonko mi ngi noonu c'est de la provocation c'est la provocation ils ont gazé le véhicule du président Ousmane Sonko ak foule bi mu àndaloon ça c'est de la provocation sa c'est de la provocation mi ngi noonu dooraat nañ beneen lacrymogène dooraat nañ beneen lacrymogène man naa suñu xaalis xaaral ma dem ci kii non non munoo def ci da ngay soog mos nga yëg. yow xanaa mos nga am doole. damay dem ah oto yi départ bi fi ci parce que bu sama jox ko fi nekk jox ko fi nekk jox ko fi président Ousmane Sonko la ñu gazé. di ay dëmbëlër. mi mi ngi noonu ñoo ngi tiré ay grenades lacrymogènes encore encore et encore mais lii da loo xamante ne lu yenuwul maanaa la ngi noonu ñu ngi continuer di tiré ñu ngi continuer di tiré ñu ngi continuer di tiré alors que le peuple est sorti le peuple est dehors pour soutenir le président Ousmane Sonko ñoo ngi noonu ñoo ngi continuer di tirer sur la foule ñoo ngi continuer di tirer ci li nga xamante ne moom mooy le du président Ousmane Sonko. waaw. Oh! bul dem Lamine. Lamine bul eh! mi ngi noonu. ñi ngi continuer waa di tirer ay grenades lacrymogènes ci président Ousmane Sonko alors que la population ñi ngi newoon di def une procession tranquille président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko ñoo ngi noonu lii moo leen métti li askan bi génn moo leen métti askan bi génn na tranquillement en procession ñu ngi noonu di tirer comment peut-on tirer sur son peuple comment peut-on tirer président génn na président génn na président génn na mi ngi noonu en général le général est là le président Ousmane Sonko mi ngi noonu moom ngeen di seen en général le général est là le général est là le général est là le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko le général c'est un général c'est un général c'est un général il est là au-dessus de son véhicule mi ngi noonu sécurité bi ñu ngi koy nax na dugg président mi ngi noonu en cagoule le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko mi ngi noonu mi ngi noonu président Ousmane Sonko mi ngi noonu mi en général en général en le président Ousmane Sonko debout sur son véhicule le président Sonko on continue on continue suñu progression dafa wad dafa wad non mooy man lañ tëj nag. mi ngi noonu yéen seen force de l'ordre yi seen force de l'ordre yi ngi noonu di avancer suñu ginnaaw. tiire nañ ay lacrymogènes yu bëri mais on progresse le peuple peuple bi ñii la àndal peuple bi président Ousmane Sonko la àndal président Ousmane Sonko ñoom la peuple bi àndal mi ngi noonu la presse copain copain xoolal bu leen ma daaneel. teewlu teewlu teewlu teewlu fixé fixé waaw may ma fii fi nekk. Sonko gën la ba takkaat la nga xam ne moo di kagul. am ñu may leen vinaigre ah vinaigre. vinaigre vinaigre vinaigre mu ñëw. Aïcha Aïcha Aïcha alma vinaigre. dañoo baare yow li doon Aïcha lan nga may gàddu gi ba pare xaaral xaaral lan nga may kii ba pare Aïcha am am. Eh. mi ngi noonu. lii pour gàddu la lii pour la. may la ñëpp may la ñëpp may la ñëpp may la ñëpp amul dara amul dara may la ñëpp may la de ils ont tenaillé le véhicule du président Ousmane Sonko mi ngi noonu fii lañ ko tenaillé lan lañ ci bëgg lan lañ ci jublu président Ousmane Sonko mi ngi noonu yéen a ngi gis oto bi bloqué auto police moo bloqué li nga xamante ni moo di véhicule président Ousmane Sonko il s'apprête à faire quoi lan la ñu bëgg a def lan la ñu bëgg a def mi ngi noonu lan la ñu bëgg a def yéen gis askan bi xool leen askan bi xool leen li xew fii le blindé de la police moom moo bloqué le convoi du président Ousmane Sonko fii lu nekk mën na fee lu ne mën na fee xej Waly Bodian le chef de la sécurité dem na seeti leen parce que fii lu ne mën na fee xej lu ne mën na xej mi ngi wax ak ñoom parce que bloquer le véhicule du président Ousmane Sonko sécurité baa ngi ne force de l'ordre yaa ngi ne ak seen dispositif ils n'ont pas hésité à tirer des grenades lacrymogènes sur une foule qui marche et qui chantonne c'est inédit ce qui se passe ici et c'est indigne de notre République c'est indigne du Sénégal. C'est indigne de nos ancêtres, c'est indigne de notre démocratie. Le président Ousmane Sonko est dans son véhicule, sorti tout à l'heure en cagoule, tel un général, pour parler à cette foule-là, pour dire à cette jeunesse, je suis à votre côté. Mais qu'est-ce qu'est en train de faire le ministère de l'Intérieur et la Gendarmerie nationale à travers sa police Ceci, c'est inédit, c'est inadmissible. Le chef de l'opposition sénégalaise mi ngi noonu ñoo ngi teg seen oto fii bloqué yoon bi ba auto président Ousmane Sonko mënut a dem lu nekk mën na fee xew nag lu nekk mën na fee xew waaye lu fi mënti xew ça c'est de la responsabilité pleine et entière de ki nga xamante ni moom moo di Macky lépp lu fi mën mënti xew c'est lui c'est c'est lui qui est engagé et son ministre Antoine Diome ñoom la lépp ñoom la bëgguñu fuul bi génn bëgguñu askan bi wéy bëgguñu askan bi kontaan lii kenn mënu ci dara yàlla moo ko def nit ñaa ngi gën a ñëw nit ñaa ngi gën a ñëw si vous pouvez abattre tous ces gens alors faites-le le peuple est là le peuple sera saura se multiplier ñoo ngi fii ci corniche ouest à hauteur de Soumbédioune le véhicule et le convoi du président Ousmane Sonko injustement injustement gazé pour un rien pour un rien du tout mi ngi noonu que sa presse nationale international puisse regarder et voir que le monde puisse regarder et voir ce qui se passe si mi ngi nii tàncati nañ li nga xamante ni le convoi du président Ousmane Sonko ak jeunes yi lii est-ce que du pousser jeunes yi ñu dem defi leneen mi ngi noonu yeneen a seen seen oto bi fii lañ ko bloqué bàyyi ko fii bañ bouger alors que la foule est immense la foule est immense ñu ngi ci ginnaaw mi ngi noonu la sécurité veille au grain Père Djibi mi ngi noonu Wali de la sécurité ils ont parlé avec les gens de la police mi ngi noonu président Ousmane Sonko toujours salué mi noonu quand c'est la police à l'œuvre nii la mën a demee Antoine Diome Antoine Diome ces images feront le tour du monde Antoine Diome ces images feront le tour du Sénégal huissier de justice baa ngi fi il va constater constater li nga xamante ne moom mooy ce frein cette atteinte à la liberté de circuler des citoyens sénégalais les huissiers sont là ils feront le travail ils vont le constater encore une bavure encore loo contre le président Ousmane Sonko la mu fekk ci bavure yi nga xamante ne moom la koy yàgg subir depuis 2014 on a un état dictatorial cet état dictatorial utilise la force publique la force du peuple contre le peuple ça c'est le constat inadmissible le président Ousmane Sonko toujours dans son véhicule yéen a ngi xool le dispositif sécuritaire qui nous tenaille nekk ci ginnaaw ànd ak seen ay lacrymogène loolu yomb na trop taxaw ci ginnaaw lacrymogène poule bi mi ngi nii tey xale yi bu ñu riposté rek lu nekk mën na fee am lu ne mën na fee am mais il faut lue il faut louer cet esprit patriotique du peuple sénégalais et de cette jeunesse qui n'a pas cherché à aller en découdre avec ces forces de l'ordre qui sont nos frères cette jeunesse des patriotes du Sénégal et une jeunesse responsable malgré li nga xamante ne moom moo di la provocation les jeunes sont restés zen les jeunes sont restés zen ñi ngi noonu avocat baa ngi noonu Clédor a ngi noonu wax ak gars yi waaye itam je dis que ceci est sous la présence d'un huissier de justice qui va constater et qui va constater li nga xamante ne moom lañ ko def président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko askan baa ngi na la ci ginnaaw di ko xaar askan baa ngi ci kanam di ko xaar lii de la ñuy bañ lii de la ñuy bañ lii de la ñuy bañ créer seen trouble à l'ordre public après bëgg ko amputé le président Ousmane Sonko lii kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu doon comment des forces de l'ordre peuvent-ils être les catalyseurs et peuvent-ils être ce qui provoque ces troubles à l'ordre public une procession joyeuse une procession juvénile de ces jeunes ñu topp président Ousmane Sonko di béggee ak moom nga di gazé amul yoon tedu du yoon on se demande dans quel pays on est mais ce n'est plus le Sénégal démocratique tant chanté le chef de l'opposition Sénégal du Sénégal moom la ñu gazé lii kenn xamul mu doon mais nous sommes au poste nous sommes au poste lacrymogène ou pas lacrymogène ou pas nous sommes au poste le peuple est là le président Ousmane Sonko est coincé au niveau de la corniche ouest à hauteur de Soumbédioune lui qui était avec ses jeunes en train de progresser, en train de rentrer chez lui tranquillement, accompagné de milliers de jeunes. Et ce convoi a été gazé, injustement d'ailleurs. Injustement d'ailleurs. Ces jeunes ont été gazés, ce qui provoque actuellement ces échauffourées, mais aussi la police nationale qui a déployé des blindés pour barrer la route au président Ousmane Sonko. Mais on ne sait pas quel est leur projet. Le monde entier doit regarder ce qui se passe ici sur la corniche ouest à hauteur de Soumbédioune. La presse nationale et la presse internationale est témoin de ce qui est en train de se passer. Et on demande à vous qui nous suivez, partagez le live au maximum. Il faut que l'Afrique sache que l'actuel président de l'Union africaine est l'un des, ou bien le premier pourfendeur de la démocratie et de l'image du peuple sénégalais et de l'image de l'héritage démocratique Le chef de l'opposition sénégalaise en train ici d'être gazé parce que seulement il, a, il est accompagné par de milliers de jeunes. Par de milliers de jeunes qui sont en train de l'accompagner. La presse nationale et internationale est témoin. Nous sommes là. Nous sommes là. C'est des événements tristes. C'est des événements tristes pour l'image du Sénégal. Et c'est le président de, en exercice de l'Union africaine qui est en train d'exercer sa dictature sur le peuple sénégalais. Et l'un qui en fait les frais. Le premier qui en fait les frais, c'est le président Ousmane Sonko, le chef de l'opposition sénégalaise, tête de file de la coalition Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui, on revient même pas 100 minutes du tribunal de Dakar où, de manière sereine, le président Ousmane Sonko a répondu à l'appel de la justice. Ceci, juste après ce qu'on appelle le renvoi, juste après le renvoi de ce procès au 16 mars, il est sorti tranquillement en train de rentrer chez lui accompagné par ses militants et la police nationale du Sénégal a gazé ces milliers de jeunes créant ces incidents, créant surtout ces troubles à l'ordre public, ce qui est inacceptable, ce qui est inacceptable. Paul Kagame, voici Macky Sall. Félix Tshisekedi, voici Macky Sall. Sissoko Embalo, voici Macky Sall. Denissa Singasso, voici Macky Sall. Mi ngi noonu, la police décide, la police se décide de faire bouger son blindé. Regardez cette foule immense derrière euh, ce qu'on voit. Ceci peut créer des incidents graves au niveau de cette corniche ouest parce que la marée humaine est là. Mais il faut saluer l'attitude de ces jeunes patriotes, de ces jeunes Sénégalais qui n'ont pas répondu à la provocation des forces de l'ordre sous la tutelle et sous les ordres d'un ministre de l'Intérieur politique marquée Antoine Diome il mérite d'être envoyé à la CPI que les organisations des défenses des droits de l'homme prennent leurs responsabilités que ces crimes soient documentés que ces bassesses doivent soient documentées 2024 ils vont répondre de la justice de la justice du Sénégal et celle de l'international mi ngi noonu président Ousmane Sonko Abass Fall noonu demoon wax ak sécurité bi nit ñaa ngi ci kanam police décidé nañ dindi fi seen blindé ñi ngi noonu di manœuvrer pour mën a dem président Ousmane Sonko fi mu nekk du fi bouger tant que la police ne pousse par de son chemin bu ñu jógewul ci yoonam moom du fi jogee et le message est très clair de plus en plus ñuy gën a taxaw askan bi di gën a génn askan bi di ko gën a fekk si président Ousmane Sonko mi ngi noonu oto yaa ngi koy nuyu toujours di klaxonner di wane ni ànd nañ ak moom di wane ni moom moo nekk ci dëgg police a ngi noonu kenn xamul lu mu doon ce n'est plus des forces de l'ordre mais c'est des forces du désordre parce que li ñu def tey ci kanamu ñëpp et j'espère que tous les médias indépendants libres et surtout dignes vont retransmettre directement comme ce qui s'est passé amul manipulation ci kanamu askan bi yëpp la amee ils ont gazé le convoi du président Ousmane Sonko avec les milliers de jeunes qui l'accompagnent à hauteur de la radio Futur Média de Youssou Ndour loolu mooy li am ça ce sont les faits comme on dit en journalisme les faits sont sacrés et on se limite aux faits et devant tout le monde que demain dans ces urnes que demain cette presse corrompue cette partie de la presse corrompue puisse avoir la honte ou ressentir la honte de titrer autre chose le peuple regarde le peuple regarde ku def dëgg ñu ànd ak dëgg ku waxul ku def safaan ba ñu ànd ak safaan ba mi ngi noonu gendarmerie yokk nañ seen dispositif ñu ngi noonu gën a ñëw gendarmerie renforcé na police ñu ngi ci ginnaaw ci oto wu président Ousmane Sonko je peux même dire à moins de 500 mètres du véhicule du président Ousmane Sonko en général il est sorti tout à l'heure encagoulé saafonte ak xale yi malgré lacrymogène yi malgré bavure yi gars yi teg waaye président Ousmane Sonko dafa nekk ci yoon askan bi la àndal eh eh Abass mi ngi noonu créer trouble ba pare bëgg a solution ñi ngi noonu di wax ak président ak honorable honorable Abass Fall créer trouble ba pare bëgg trouver solution ça se passe qu'au Sénégal le Sénégal du président Macky Sall un apprenti dictateur à la tête de l'Union africaine C'est ça la réalité. Le monde entier regarde. Partagez ce live. Il faut que l'Union européenne soit au courant. Il faut que les États-Unis d'Amérique soient au courant. Il faut que la toute-puissance russe soit au courant. Il faut que le monde entier soit au courant. L'Union africaine, regardez ce qu'est en train de faire votre président, celui qui veut redorer le blason de l'Afrique. C'est plutôt celui qui est en train de le salir. Nous sommes là en direct. Le président DEFNA full klaxon on est toujours là le véhicule de la police est toujours là malgré que le blindé est là nous sommes mi ngi noonu mi on met injustement on met de manière inutile en danger la vie de milliers de Sénégalais de ces jeunes mais aussi la vie de ces forces de l'ordre qui après tout ce sont nos frères, ce sont des Sénégalais qui sont là, qui exécutent des ordres. Mais comme dit le président Ousmane Sonko, à un ordre manifestement illégal, il faut désobéir. Mais pour certains, ils l'ont exécuté malheureusement aujourd'hui. mi ngi noonu Abass Fall nee na ci kaw la ñuy jaar jaaruñu ci tunnel bi tunnel bi wóorul du jaar ci tunnel bi ci kaw la ñuy jaar mi noonu naka nga mën a wax nit ki jaaral fii wala jaaral fee un citoyen qui est libre de le pays le pays est devenu le président de l'Union africaine Macky Sall est à l'œuvre c'est lui qui manœuvre c'est lui qui emporte l'entière responsabilité Thomas Sankara Thomas Sankara qui vient à la rencontre du président Ousmane Sonko L'héritage est bien tenu. L'Afrique nous regarde. L'Afrique nous regarde. Voilà ce qui se passe au Sénégal à l'instant T. mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu ci kaw la ñuy jaar ci kaw la ñu bëgg a jaar lu tax ñu bëgg ñu jaarloo ci suuf comme j'ai dit ce matin les mêmes causes produisent les mêmes effets ou les mêmes conséquences En mars 2021, ils ont voulu le faire et ça avait créé les émeutes de mars. Aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, ils sont à la manœuvre. Que recherchent-ils? Qui sont ces gens derrière? Qui sont ceux qui donnent ces ordres? Le président Ousmane Sonko va passer là où il veut passer. C'est un citoyen libre, il n'est pas condamné. C'est un citoyen libre, il a ce droit-là et ce droit est garanti par la Constitution sénégalaise. La liberté de circuler des personnes et des biens, et ce, librement en majuscule. On va exercer. Regardez cette foule qui s'amasse, qui s'amasse, cette déferlante humaine qui s'amasse autour du président Ousmane Sonko. mi ngi noonu mi ngi noonu xale yaa ngi noonu taxaw ak détermination nee nañ fii la ñuy jaar waaye situation bi boo ko xoolee nga xam ni provocation la ils vont encore tirer des grenades lacrymogènes et ils vont encore blesser des milliers de jeunes Mais malheureusement, on ne sait vraiment pas ce que veulent, ce que veut réellement ñi nga xamante ne ñoom ñooy les tenants du pouvoir, les forces de l'ordre qui sont, comme j'ai dit, facteurs du désordre. Ça, c'est une première dans le monde entier. Nit ki yóbbu nga ko procès dem na wuyu ji tranquillement di génn di ñibbi tranquillement te doo ko bàyyi mu dem yoonam mu ñibbi këram ànd ak ay nitam waaye bànneexu sénégalais yi moo leen neexul waaye liesse populaire sénégalais yi moo la neexul malgré vie bi lu mu saf-saf lool métti métti lool Ousmane Sonko moom mooy yaakaaru askan bi Ousmane Sonko moom mooy bégal xolu sénégalais yi ci loolu la ñu ne gaa yaa ngi wax policier yaa ngi noonu gendarmerie yaa ngi noonu li amul benn njëriñ Certainement, ils vont encore gazer. Comme j'ai dit, certainement, ils vont encore gazer. Les moyens, c'est une gestion. de la foule. C'est malheureux. C'est malheureux. Gis ngeen fi ñu bëgg a jaar foofu la beneen auto police ñëw dugg ci biir foule bi mi ngi noonu askan bi ñu ngi leen koy xajal amul problème saison sont les forces de l'ordre waaye tamit li ñu war a def dañ ko war a xoolaat li ñu war def dañ ko xoolaat on met inutilement en danger des milliers de vies pour un rien, pour un rien. Voici l'image de la démocratie sénégalaise. Voici l'image triste que donne le Sénégal, jadis fenêtre de la démocratie en Afrique. Le président Ousmane Sonko, président Ousmane Sonko. mi ngi noonu mi ngi noonu xale yaa ngi noonu di gën a bëri mi ngi noonu xam nga tey lii lu ne mën na cee xew lu ne mën na cee xew bu ñu bàyyi woon président dem day fekk affaire yi jeex na bu ñu bàyyi woon président dem day fekk affaire yi jeex na mingi noonu tiire waat nañ waxoon naa leen ko tiire rek la ñu xam waxoon naa leen ko waxoon naa leen ko eh tamit ñu football li ñuy def mi ngi noonu nañ tiirewaat nañ yéen a koy seen ci kanam mi ngi noonu suñu oto bi sax jot nañ ko toj tiirewaat nañ comme ni ma leen ko waxee ñoom tiire rek tiire rek tiire rek la xam waat nañ pour tasaat ful bi waaye lii lim fi créé lu ne mën na fe am. mi ngi noonu waat nañ waat nañ convoi baa ngi noonu gazé waat nañ ko gazé waat nañ ko mi noonu ñi ngi tiire ñi ngi tiire ngi tiire gis ngeen oto gis ngeen oto genre oto police bi gis ngeen ni tiire tiire nañ xeer yi directement ci oto président mi noonu ñoo ngi progressé xale yaa ngi noonu ils ont créé li nga xamante ne kenn xamul lu doon créé waat nañ ko créé waat nañ oto oto bip oto baa ngi noonu oto baa ngi noonu ngeen di seen xoolal sama mbokk journaliste yi ñi ngi noonu sans protection ñi ngi leen di gazé mi ngi noonu mais jaar nañ ci kaw ci kaw la ñu bëgg a jaar ñu ngi noonu ci kaw la ñu bëgg a jaar fi ñu bëggoon jaar fa la ñuy jaar du ñu jaar ci suuf du ñu jaar ci suuf Hmm? vinaigre vinaigre. vinaigre vinaigre. booy bul sori bul sori bul sori booy doo ma amal tamit doo ma amal masque bi doo ma amal masque bi masque masque mu génn. jàppale ma rek jàppale. sànq dama ñu mi ngi noonu mi ngi noonu ñi ngi gën a tiire. ñi ngi gën a tiire ñi ngi gën a tiire mi ngi mi ngoog yéen a koy seen ñi ngi tiire ñi ngi tiire ñi ngi tiire askan baa ngi noonu ñi ngi gaze ñi ngi noonu di gaze askan bi askan bu deful dara askan bu deful dara ñu koy gaze mi noonu lii la ñuy bañ lii la ñuy bañ mi noonu daa mel daa bëgg a génn. ah kii ah. Ah, noonu. tiire waat nañ. ñu ngi noonu tiré waat nañ yaa ngi sori waat nañ tiré waat nañ président Ousmane Sonko oto ma ngi noonu ñu tànc fële ci kaw mi ngi noonu on va gars yi nee nañ ñu mi ngi noonu mi ngi noonu. ñu ngi noonu ñu ngi noonu ñu ngi noonu ils ont ils ont pris ils ont pris le en tenaille le véhicule du président Ousmane Sonko mi Est-ce qu'ils sont en train de l'arrêter Est-ce qu'ils sont en train de l'arrêter Est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont en train de l'arrêter Est-ce ngi noonu xaaral ma jege si xaaral ma jege si ils ont pris en le véhicule du président Ousmane Sonko comme ni ma ko waxee ñoo ngi continuer di tire ils ont ils ont pris en tenaille ont pris en tenaille le véhicule du président Ousmane Sonko ils ont pris en tenaille ñoo ngi noonu ñoo ngi noonu ils ont pris le véhicule du président Ousmane Sonko la sécurité est toujours là la sécurité toujours là président Ousmane Sonko ñoo ngi nii toujours là Toujours là, ils ont pris en tenaille le véhicule. À quelle fin recul président Ousmane Sonko mi ngi noonu comme je vous ai dit force de l'ordre yaa ngi noonu dina xaw a metti le président ne bouge pas son véhicule toujours là entouré ah, de sa sécurité mi ngi noonu mi ngi noonu la sécurité toujours au poste ñi ngi noonu ils ont créé la situation et sont en train de trouver une solution président Ousmane Sonko mi ngi nii entouré des véhicules de la police nationale lan la ñu bëgg lan la ñu bëgg on ne sait pas lan la ñu bëgg on se demande On se demande ce qui se passe ici. Toutes les unités d'élite de la gendarmerie et de la police nationale mobilisées parce que le chef de l'opposition veut rentrer chez lui. Quel paradoxe. C'est une situation inédite, c'est une situation inexplicable. C'est une situation qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas expliquer. Le président Ousmane Sonko, chef de l'opposition sénégalaise, qui rentre chez lui après avoir répondu comme un bon citoyen à l'appel de la justice accompagné par des jeunes heure bi da doon fekk àgg nañ bu yàgg heure bi da doon fekk àgg nañ bu yàgg mais ñoom ñi ngi nii ñi ngi nii topp oto yi bloqué ko kenn xamul lii lu mu doon kenn xamul lii lu mu doon jàmbaarloo xale yi créer ay situation yoo xamante ne xamul ñoom ñëpp a ngi fii unité d'élite yëpp a ngi fii muy GIGN muy BIP ñoom ñëpp a ngi fii xam nga li nit mënu ko comprendre nit mënu ko comprendre mais voilà l'état triste et piteux de la démocratie sénégalaise mi ngi noonu et vous voyez des éléments du GIGN di ñëw pour wax ak président lan la ñu bëgg lan la ñu bëgg waa GIGN a ngi noonu ak waa BIP même ñi ngi noonu bëgg wax ak président vont-ils l'arrêter ou ils veulent juste discuter avec lui ont-ils reçu l'ordre de l'arrêter on ne sait pas on ils reçu l'ordre de l'arrêter On ne sait pas. Ils veulent discuter seulement avec lui ou ils veulent l'arrêter. Binginon, vous vivez ça en direct. Le président Ousmane Sonko, son véhicule assailli par des éléments de la BIP. yéen a ngi seen BIP a ngi noonu GIGN a ngi noonu ñoom ñëpp a ngi noonu wër auto président à quelle fin lan la ñu bëgg lan la ñu bëgg les éléments de la BIP ñoom ñi ngi élément BIP yaa ngi noonu di déployé wu autour autour du véhicule du président Ousmane Sonko ñoo ngi noonu ñoo ngi noonu on ne vraiment pas on ne vraiment pas quel est le projet on sait vraiment pas quel est le projet mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu des éléments bu GIGN ñu ngi noonu wër oto bi ak élément wu BIP ñu ngi déployé wu autour du véhicule du chef de l'opposition sénégalaise le président Ousmane Sonko à quelle fin ils veulent faire quoi ils veulent l'arrêter ils veulent l'escorter delloo ko on ne sait pas Waly Diouf Bodian est là tout serein le président Ousmane Sonko aussi tout serein ñoo ngi noonu les véhicules de la BIP se mettent en branle les véhicules de la BIP se mettent en mi ngi noonu tenaaye nañ oto bi tenaaye nañ oto bi il faut saluer l'esprit patriotique de ces agents de sécurité du président Ousmane Sonko la sécurité rapprochée toujours aussi serein ñi ngi noonu respecter la loi toog ni tekk jàkkaarloo ak oto président Ousmane Sonko waa BIP ak waa GIGN ñi ngi waxtaan que veut-il loolu la ñu bëgg a xam ñoo ngi noonu Wali Bodian mi mi ngi noonu agent bi yaa ngi noonu ñoo ngi noonu léegi ñoom dañoo créer situation ba pare bëgg évacuer situation on n'arrive pas comprendre on n'arrive pas comprendre créer une situation et vouloir et vouloir que situation bi ñu réglé ko alors que heure bi bu ñu bàyyi woon xale yi bu ñu duggee ci corniche bi oto yi accéléré day fekk àgg nañ dans la tanière du lion cité kër góor gi ñoom ñoo ngi noonu wër oto bi toujours en pour parler lan la ñu bëgg def lan la ñu bëgg a def ñoo ngi noonu le staff du président Ousmane Sonko le chef du protocole Père Djibi Gueye Ndiaye au milieu de ses agents d'élite du GIGN waa BIP déployé nañ waa BIP déployé nañ ñu ngi noonu comme d'habitude ñoom daal fokk ñu bokk ci xew mi ñoom daal fokk ñu bokk ci xew mi foo mënti jaar ñu ni la ñoom dañuy escorter président créer situation ba pare ñu ni nañu escorter président président Ousmane Sonko mi ngi noonu comme d'habitude comme d'habitude on va vers cet épisode qu'on a vu et qu'on a revu à plusieurs reprises malheureusement le chef de l'opposition accompagné d'une foule immense qui quelques minutes après est dispersée par les forces de l'ordre c'est le président Ousmane Sonko le chef de l'opposition du Sénégal tête de file de la coalition Yewwi Askan Wi. mi ngi waaj a dem. ñoo ngi ci tolluwaay goo xamante ne kenn xamul nu mu demee tolluwaay gaa ngi noonu wër nañ ko les véhicules waa BIP mettre nañ en branle ñoom ñoo ñooy tijji buntu bi et pourtant ça aurait été plus simple de laisser le peuple accompagner quand parce que c'est un besoin du peuple c'est le peuple qui veut communier avec cet homme. mul woon trouble à l'ordre public ils ont créé trouble à l'ordre public c'est malheureux et nous sommes toujours en direct sur la page du président Ousmane Sonko eh, eh, mu dem sécurité sécurité sécurité sécurité bàyyil journaliste yi yéeg rek sécurité bàyyil journaliste yi yéeg. Mohamed yéegal wax ji waayam ah. sécurité sécurité bàyyil journaliste ñoo ngi nii ñoom ñi ngi avancé mi ngi noonu bëgg a yóbbuwaat président comme d'habitude <laughs> comme d'habitude et pourtant le peuple l'accompagnait tellement bien de manière si joyeuse. de manière si joyeuse mi ngi noonu indi nañ seen sangomar seen anti émeute bu gendarmerie nationale. eh non man mi wax ñu ko jaral quoi ñi grand yi nga wax day dem sama wax bu wax mi ngi noonu dañoo mi ngi noonu dañoo bëgg tenaaye dañoo bëgg tenaaye convoi aw président Ousmane Sonko mi ngi noonu waaw unité yaa ngi noonu BIP ak GIGN ñoom ñëpp a noonu bëgg a président Ousmane Sonko te peuple bi ñu ngi ko doon def de manière. mi ngi noonu commencé waat nañ tiire ay lacrymogène ci beneen côté bi lii moom dina metti Ndiaye. mi mooy. mi ngi noonu. lii kenn xamul nu mu demee tiré waat nañ ay lacrymogène côté bee ci kanam mais le peuple est là mi ngi noonu comme niñ ko waxee booy bi wax ko am na ñuy sànni fii ay grenade nag ci ginnaaw. grand grand bàyyil yooyu. grand déglu ma oto ngi noonu grenade yaa ngi commencé safaat ndax tiré waat nañ beneen côté bi GIGN a ngi noonu GIGN a ngi noonu biipa ngi noonu indi nañ seen ay oto

rib rib ñoo ngi. yow mënoo ñu si wàccee man man mënoo ma wàccee si oto bi yow. sànq dama laa bàyyi si biir rek mais man mënoo ma wàccee man si oto bi yow. voilà. bàyyil wax ji nag. leen sonal waay. da nga koy jàppale rek. moo ngi. non man fës na fës na. waaw ñoo ngi noonu blindé wu gendarmerie bi tijji na voie bi auto président départ na ñu ngi noonu gis nga bloqué waat nañ ñu bloqué waat nañ ñu mi ngi noonu bloqué waat na ñu mi ngi noonu bloké waat nañ ñu Amat mi ngi noonu bloqué waat nañ ñu eh, ñu ngi noonu bloqué waat nañ ñu mi ngi noonu bloqué waat nañ ñu président Ousmane Sonko ngi ne mais mi ngi toujours suñu ligne de mire mi ngi noonu bloqué waat nañ ñu ñu ngi noonu waaw bloqué waat nañ ñu mais président Ousmane Sonko est toujours dans notre ligne de mire oto yaa ngi noonu oto yaa ngi noonu oto yaa ngi noonu ils ont bloqué le véhicule bi nga xamante ne moom la presse bi nekk bloqué ko ñoom ñu dugg ci diggante bi ngi noonu ñoom ñu ngi dugal seeni ay oto ñu ngi noonu président dugg na noonu ils ont bloqué nañ suñu ay oto mi ngi noonu bloqué nañ suñu ay oto mi ngi xaaral ñu jéem a xool. waaw ñu waaw oto yi bloqué nañ ko. waaw waaw waaw ñu ngi dugg waa ji dugg tunnel bi ñu ngi waa ji dugg ci tunnel bi. ñu ngi ñuy bloqué waat. ñu ngi ñuy bloqué waat. bu bàyyi leen ñu dem rek parce que daa mel ni dañ ñoo identifié mais garaawul leen bàyyi. le président Ousmane Sonko mi ngi fas yéene dugg ci tunnel bi mi ngi dugg ci tunnel bi. président président dugg na ci tunnel bi accompagné d'une dizaine de véhicules. ñëpp ay a dem. ñu nañ ñu c'est fait volontairement. c'est fait volontairement. tay tay kuy wàcc nga wàcc te bàyyi wax ji waay nga wàcc te bàyyi wax ji bu leen sonal waay ah. ci biir Bobet ana ana sa wala kii mooy def kii nekkutul sécurité wala wala bu ngeen alors mas mo finir comme journaliste nga xam saay moi je suis journaliste à la 2S excusez-moi excusez-moi je cherche une carte de presse nationale pas aujourd'hui toi tu veux plus continuer dal waata soxla